aus billahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa di yeesal sunu pësteef ak sunu kóllëre ci yéen ñi nga xam ne yéen nga nuyu seetaan te di déglu rawatina ñi nga xam ne dañuy jubbanti bu baax a baax dellu siwaat seen émission bi ñu tuddee Madinatu Ilmi ñu ciy waxtaane fii ci 24 ak di ko amal ci ay bis jot ñu fa yéene dellusi si nag tey ci benn tomb bu itteel boo xamante ni bu ñëpp war a bàyyi xel la tomb boobu nag tey danoo fa yéene waxtaane lu jëm ci wàllu daare alxuraan yi ak imaam yi nga xam ne ñooy nekk ci jiite jullit yi yàlla teg leen ci kaw ñuy jàngal nit ñi ak di leen yar ñu gis ne fan yii de coow lu bare bare bare am na ci wàllu daare alxuraan yi ci wàllu ñuy suye ay théâtre yoo xamante ni lan ci jublu lu dul doyadil jàngalekatu alxuraan di wane exemple yi wane ne nii la jàngalekatu alxuraan mel ci ak doyadi ak suufe nii la kiy jàng alxuraan di toraxe bu ko jàngee ba noppi am ñu yëkkati kàddu wax ne léegi nanuy jàngal xale yi muy chrétien yi ak ñu du diine ñu leen di jàng alxuraan ndax bu nu jàngee ba noppi duñu xam dara kon jàngale alxuraan dañ koo war a def bu nu jàngalee wut métier loolu nag yaakaar naa ne réew mu nu dem ba fookat yi ñi ci gën a fo doyadi ñooy doyadi ña gën a doy yàlla ña gën a doy yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla wax ne wala alxuraan wala xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi ñoo doon yonent yi yonent yi ñooy ñi yàlla yónni woon bu nu demee ba ñuy jàngale alxuraan ñu leen di doyadil di leen wax yu bari ba fan yi dégg ngeen ñu ne am na benn baar boo xamante ni ka ko moom mooy ab imaam la fan yi jàpp nañ benn waaye ñu ne kunu nu jàpp la koo xamante ni dañ kuy nodd la ba nu demee ba visité ko lan ca gis muy ay bon wala yàmbaalan nangoo ci moom loolu moom kenn du ko weddi weddi gu sëmbaxtal wane ne amul ndax doomu aadama rek lan imaam yi jiite ay doomu aadama lan jàngalekatu alxuraan yi ay ay doomu aadama lan waaye la ci gën a doon wér mooy baat yooyu de ku ko wax war ngaa indi firnde ju leer alxuraan moom du la wax bul bul bul sosal kenn waaye dalay wax ne la képp koo sosal na nga ko wane mu doon lay wu leer nañ ci bëti nit ñi waaye bëgg a ak bëgg gàkkal tax nga ne ab imaam moom moom baar sàngam wala nga ne noddukat sàngam moom la jàpp gis nañ ci moom la nga xam ne moo di yàmba jàngalekat alxuraan yi gis nañ ne ñoo àgg ci diw sàngam xale bu ndaw ñoo dóor sàngam yooyu yëpp day am kenn du ko weddi kenn du weddi ne mënul am mënul am ndax ay nit lan waaye nag li ci gën a kii doon kiimaan mooy foye gi ñu koy foye ku bëgg wane nit ku doyadi wala nit ku ñàkk solo da ngay wan xoolal dongay daara yi ñooy taxawaale ci fóoruus yi ñooy wër di yalwaan bu sàcc amee ñu ne ñoom la semeur yi am ci mbedd mi ñu ne ñoom la ndax li ko waral mooy jàngunu alxuraan loolu de kenn du ko weddi waaye loolu ñuy wane ci alxuraan di ko wane ci daara di ko wane ci imaam bu nu delluwaatoon ca ñanu jàpp ne ñoo gën a kawe ñuy ay ministre wala ñeneen ñi jiite réew mi tey baat yi di ko ko tegoon ci ki nga xam ne moo jiite réew mi wax ko baat yu ñàng yii yaakaar naa ne jant du la sooya fa nga nekk te moo ne moom de ab imaam lan ko war a jàppe ndax moo nu jiite te imaam loolu lay tekki baat yooyu de ku ko jëme woon ci moom yaakaar naa li lay wër ci ay pëlise li lay wër ci takk der lii lay wër ngir bëgg laa gis ngir bëgg laa xañ jàmm kenn du xam nu mu toll te moo ne responsabilité bu mu gàddu rek imaam yi gàddu nan bu toll noonu ndax ñoom dañ leen a doyloo ci sunu wàllu diine sunu wàllu diine lañ leen doyloo Seydina Aboubacar bin koy fal Seydina Omar ñu wër wër amunu Seydina Omar dikk ci moom Seydina Aboubacar dikk ne ko dama bëgg ñu jaayante ci yow mu ne ko déedéet man duma jaayante tàllalal say loxo ma jaayante ndax yow yonante bi sallallahu alayhi doyloo woon na la ci sunu diine nu ñuy def ba dun la doyloo ci sunu àdduna kon mbokk yi nanu xam ne alxuraan de ku koy foye am réew mu naa tàng de mënoo koo séentu ci sa jamono maanaam xol yu fees dell ak mbégte mënoo koo feesu li ngay séentu kay mooy natt yu ma yu tar ak mbugalam sunu boroom ak ab sànjeem kon nag nan delluwaat ñu xam ne daara li ko tax a jóg mooy defar ab société daara li ko tax a jóg mooy fekk doomu aadama joo xamante ni sunu borom dafa am lu manqué ci moom lim ko manquel mooy am xel manquel ko doomu aadama ji jaar ci daara nekk fa jàng alxuraan ba mu jàngee diineem ba mu fa jógee mu jàng lépp loo xamante ni métier la li ñuy wax ne ñiy jàngal alxuraan dañ leen a war a former ci métier dëgg la waaye kiy jàng français yi tamit aw làkk lay jàng dañ ko war a former ci métier moom i tamit ñoom ñooñu ñëpp kenn amu ci métier waaye nan former kiy jàngale français nan ko former ci métier métier mooy lan mooy ki nga xam ne yaakaar naa ki jàng français dong bu fekkee formé wuñ ko du mën a doon médecin kiy jàng français làkk bi dong buñ ko formé wut ci mu nekk entrepreneur du ko mën a nekk kon ni ñuy formé ñooñu nan formé te yaakaar naa bu nu demoon def sondage ci réew mi semeur yi nga xam ne ñoo jàng français ak ñi jàng alxuraan ñan ñoo ci gën a teddadi wala ñan ñoo ci gën a ñàkk métier yaakaar naa bu nu delloo danañ gis ne ñiy jàngale alxuraan ñoom yàlla ngi leen defal teraanga jàpp naa ne kii jàngale alxuraan dong lan gis mu am ab magasin am ab kenkaay yéram wala mu yor entreprise jël kuy jàng tubaab fekkoon ko muy taxawaalu amul métier mu jël ko teg ko ci wetam di ko fay weer kon jàpp naa ne alxuraan li man nan delluwaat ci jàngalekatu alxuraan yi nan dellu ñi jaar ci daara ci réew mi ñaata lan employé ci ñiy jàngoon français te amuñu état bi jëlu leen amut fu mu leen dugal delluwaat leen ci sëñ buub delluwaat leen ci ñeneen ak ñeneen delluwaat leen ci Ablaye Dia delluwaat leen ci ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñooy ay jàngkatu diine seetluwaat leen ba xam boo demoon tey fekk leen seen place seen i entrepreneur seeni i lan fa jël ci ñoo xamante ni jàngoon nan ba jàpp ne seen yi yàqu na ndax amuñu ko leen jël ñoom ñoo leen jël te loolu alxuraan leen ko may nan delluwaat ci ñiy théâtre ñu yar leen ak télévision yi seen programme bi loolu waxoon naa ko waxaat ko télé programme bi état bi moo ci war a deltuwaat ak ñi nga xam ne ñoo yore seera wala ñoo yore ñi nga xam ne ñoo yore lii daw ci tere yi ñu koy contrôler nan contrôler yàgg naa ko wax musiciens yi woy kilifa yi di woy ci diine yi ji loolu jàpp naa ne euh, ku nekk ci war a wax jël lu toll ni jumaay muy néegu yàlla ñu def ko ay image def ko ay kilip gis nañ ko fii ma Masaalikul Jinaan ji maa ngi gis woykat boo xam ne àggagul ni gireegun ko ku ku wax Faatu Géwal gis naa ko mu woy ci génne ko ne fang jumaa joo xamante ni ñëpp seen xol yaa ngi bëgg seen xol yi sedd amagun lu ñuy def nga génne image bi ne ko wàtt ci télévision bi di fecc di ko wër ñu wane ne da ngay woy diw sàngam te kam yu woy la ci gën a yéeme muy mbakki yu fay ñun ñëpp man xaw ma ko bu baax waaye mosuma dégg ñu tuddee ko làmb mosuma dégg ñu tuddee ko sabar mosuma dégg ñu tuddee ko tànn biir la ko ñor mooy liggéeyal sëñ Tuubaa kon ka def loola tooñ na tooñ na mbakki yu fay tooñ na murit yi tooñ na sëñ Tuubaa jumaa joo ko yow amoo loo koy inaugurer lu du fecc jumaa jin fii doon inaugurer ay tama fii gis nañ ko te lool lépp doya di lislaam la jumaa ji fi amoon ci Pikine wala xaw ma géej a tan ko doon ubbi luñ ci def weeru koor buy bëgg ñëw fan yii rek seetlu ngeen ne musiciens yi yëpp dafa mel ne dañoo rakkaaju bëgg balaa koor gi dikk ñu tëgg ay ay ay ay kii ku ci nekk télé boo jàpp ndax njëkkante ndax diggante boobu ñu mën cee récupérer xaalis balaa koor gee jeex bis bi koor gi weeru koor yi bala noo génn ci koor gi ne taafeer ñoom seen programme tàmbalaan ñu ngi naa suuru korité dinañ tëgg fenn suuru korité ba ci suba gi ginnaaw suba nangam loolu ak jaamu yàlla la wala foye yàlla la walla dara daare alxuraan ji mag ñi ko yoroon samp ko fi ku sabote mag ñi ku sabote daara mag ñi nga sabote sëñ Tuubaa nga saboote alaaji Maalik nga sabote allah te lii ñuy def di ko théâtre buñ ko defoon ci xalifa général benn kon coow a ngi bëgg a dee te xalifa général li leen fi teg mooy alxuraan li leen fi teg mooy diine ji moo leen fi teg bu noppee sàmm diine ji ak noppee waggar ci diine ji booboo ñu xam ne la leen ci tegoon nit ñaa ngi koy màbb te ay nit ñu doye di ñoo koy màbb église bi buñ ko laaloon ba léegi dégg nga nit ñi bu nu waxoon ñii di théâtre bu nu théâtreoon def ci église bi kenn réew mi du amati jàmm da nga dégg ñu naan ki tooñ baaxut buñ tooñ nangam te ne ki fi doon wax naa xale yi ku juddooti nan la jàngal alxuraan jàngal la ki biibul bi jàngal la nangam kooku du jullit damaa jàpp ne ñoom dañoo war a maandu ci diine lislaam diine lislaam yonante bi salaa salaa nee na min min isnil diine addis bi maa ngi kii waaye dafa wax ne maandu ci lu sa yoon nekkut bokk na ci rafet ak diine kon nit bu sunu borom waxee ne lakkum diinikum wala diini ku ci nekk da ngaa am sa diine na la sa diine doy bul dugg ci diine jàmbur di ca wax loo maîtrisé wul loo maîtrisé wul te loolu ku seetaan télévision yi xam nga ko télévision yi nag ñoom seen programme ak imaam yi dara mënta tax ñu reculer benn bi ñuy mujj mooy imaam yi ak suñ daara yi nan bàyyi saa bu nu laalee daara waa daara jóg bu nu laalee imaam yi waa imaam jóg bu nu laal te bis bu nekk ñu ngi laal alxuraan bis bu nekk ñu ngi laal imaam yi bu fekkee noonu rek moo tax ñuy manifester défendre seen bopp rek kon bu yeboo ñu toog xam ne duñ ci amab yool duñ ci am ndamit waaye bu fekkee défendre lislaam moo tax bu nu laalee imaam yi imaam waaye bu nu laalee imaam yi kay jàngale sëñ daara ne man laalunu ma ñëwunu sama daara bu nu laalee eh, sëñ daara bi imaam bi na ah ñooñ dañuy jàngale alxuraan lan waaye ñun waxunu ñun imaam ku ci nekk wuti association association imaam yi ñuy jàngale alxuraan ku ci nekk war ngaa am buum gula la yeew ca la ngay def ngeen lëkkaloo ca waaye loolu tekkiwul ne ñeen ñëpp ñiy jàngale da ngeen a war a beru fee imaam yi beru fee ñeneen ñi beru fee ñeneen ñi te loolu li muy wan mooy société bi li muy wan benn casquette bu jàll ci théâtre àdduna bépp a koy yëgandoo imaam yi wax naa ko ak ustaas yi ak suñ daar yi weeru koor bi danañ wax a wax wax bu bëgg a dee te day mel ni nit ñi yëgunu ne sax ñoom ñu ngi waaraate nit ki da ngaa war a defaru ba noppi si jéem a defar boo defaru wut wala di wut aw tur ci imaam wala ngay wut ñaata jàkka lañ fi tëj barki démb sama yaram daa dégg naa ñu naa jàkka sangam bañ ko tëjee ba léegi li ko waral mooy ñaari imaam yu doon xëccoo jàkk bu ñu demee ba imaam di ko xëcc fu nu war a defaroo bu ñu demee ba ñuy jiitu defaruwunu bu boobaa lu ci jar ubbi jaru ko sax ndax parce que jàkka ji dafa waroon ku fiy jóge jikko ju ñaaw ji nga yoroon jikkoy bëgg àdduna jikkoy bëgg daraja jikkoy tilim inna salaata tanha anil faxsaay wal munkar loola bu fekkee jàkka ji mënu koo dindi jarul nan tëj jàkka ja noonu ñu ko def moo gën bu fekkee ne ñoom mënunoo xëj bàyyee xam ne ku war a jiite dafa war a jiite jàkka imaam góoma ne woon kenn war na koo xëccoo ci àdduna di ko laaj waaye imaam bu fekkee ne noo dem ba ak pal am ci intérêt am ci xaalis di la dukkal nga xam ne jaral na la dugg lu xalwa ngir di ko def loolu day mel ni jiiteetoo ngir yàlla kiy jàngale alxuraan sunu mag ñi fi daan jàngale lu nekk leen daan dikkal te mësunoo fayeeku mësunoo kenn doona fayeeku dafa araam léegi ñu jël diine ji def ko comme toolu pël na mu pël yi baal waaye fu neex waaye mu duggee fu neex waaye mu génne woykat bu mu neex ñu kii tey bu nu demoon président fan yi woy yin ko fi woy di ko fi kii pourtant ñi ko woyee ngi ci tiit ba bëgg a dee jamono yooyu tiit lañ def bëgg a ndax parce que am na ci woy yoo xamante ni dañ ko suspendre ci télé tàngam ñi télé yi bi nu woyee président fii bu yàggut ci élection yi ñi ko doon woy woy ko aw woy woo xam ne neexul a dégg am na tele yoo xam ba jonni tey tegunu ko kon lu leen waral ñu def dara ci lislaam ñu dem di ko am fitu teg ko te lislaam moo gën a foor ñëpp moo gën a foor sunu loi bi moo gën a foor ñëpp lim nu tënkit loi bi sa tënke ko kon ñi yore télé yi nan ragal yàlla xam ne xaalis bi day jeex àdduna bi li des ci dund gi bariwul suñ Tuubaa daana wax àdduna ñett ñett rëdd fi am fii la nekkoon lii la fi def fii lañ ko def loolu rek moo ciy mujj kon nanu sàmmaat te yeesalaat xol yi te xam ne ñiy def kii ñiy saboote lislaam moom balaa ñu àddunaa tukki balaa seen ak dund a jeex ñu torox yàlla dana leen toroxal ci àdduna bëccëgu ndara kàmm dana leen toroxal àllaaxira loolu moom ku ciy waxit da nga leen yéene aw jàmm ak aw yiw waaye balaa àddunaa tukki ñoo ñuy saboote lislaam wala ñuy saboote weeru koor wala ñuy saboote nangam balaa àddunaa tukki dana torox yàlla dana leen torox te loolu ku xool ñoom ñooñu di ko woy artistes yi woy ak comédiens yi nga xam ne dañuy théâtre di def nangam ku ci feebar sax loo fajoo amul ñoom ñëpp ñi ci ëpp ñëpp daanaka dem nan ba ñi ciy feebar problème bu rëy la ñuy am lu ko waral mooy li ñuy tooñ diine ji li ñuy tooñ diine ji ku ci nekk xam na ne comédien li mu doon jaral mooy yeete ak di reeloo nit ñi di féexal xoli nit ñi loolu yàlla def ciy bëgg yonante bi bëgg ko ku mën a fekk doomu aadama ju mer fekk ku mu nangu waaye bu fekkee sa kaf ak sa reetaan gépp mi ngi ci weeru koor nangam saboote weeru koor ana weeru koor kuy nuyoo ñu ne la diw sax nga naaw weeru koor bu dee man tëdd na wala nekku fi wala nangam di foye weeru koor waxtu kaskat nga toog digg bëccëg naa damaa wóorumaak dama di foye diine ji kenn du ci wax benn imaam du ci wax bu xutba yi dikkee ci korite gi lu nekk ñu mën koo taxaw di ko wax seen intérêt yoo xamante ni jëm ci ñoom te défendrunu benn yoon diine ji diine ji ku koy défendre te sa bakkan jëralu la ko défendandoo ko ku koy défendre sa bakkan daf la ko war a jaral alaaji Abdou Aziz mi fi nekkoon da ko daan défendre bay rangooñam di génn ñeneen ñi fi nekkoon dañ ko daan défendre ba seen bakkan Sidi Lamine Niass da ko daan défendre ba mu jaral ko bakkanam ñooña ñoo def ñoo teg seen tànk fa saxaaba yee tegoon seen tànk saxaaba yi liñ daj ci diine ngir mu taxaw boo demee xa Uhud ñu ne la fii nangama fi tëdd lu tax mu tëdd fi bëgg a taxawal lislaam nga dem Badar gis la fa tëdd ñu ne la ñii fi tëdd lu tax ñu tëdd ñu ne ñii de dañ doon xeex ban rey leen ci diine yow amoo dara looy def lu du fooyee diine defandaroo diine te kun ci laaloon sa alal nga jóg ñoom ñooñu kun ci laaloon sa alal nga jóg kun ci laaloon sa alal nit ki nag bu fekkee alalam a ko gën a diine mooy alalam alal mooy addunaam daa baaxul rek ku sa àdduna baaxul mooy sa alal da lay gënal sa diine waaye ku sa àdduna baax sa diine moo lay gënal sa alal saaba yi dañ doon wax ne yàlla alal ji nuy jox tegal nu ko ci sunu loxo waaye bu mu dugg ci sunu xol Seydina Ousmane teenam bi mu jëndoon lu tax mu jënd ko ah nit ñi loo mën a waxta laaloo seen alal la dem tribunal ci ay dossier yoo xam ne dañuy kalaame ci seen alal ju nu wala lu leen yàqal waaye deegu bari gii di ñëw ak lakk gii di ñëw ak musiba mii ñu teg buñ ko jooy kenn nan ko wëlbatikuwaat saxaba yi de bu leen dara masaana dal dañuy wax ne ñun danoo am sunna yi yunu sunu yonante bi santoon te defuñu ko wala farata yoo xam ne dañ ko woyafalal lii nag njiitu réew a ci war a wax ka gën a suufee ka ci gën a doon jigéen ak góor ak ñëpp a war a yëkkati seen kàddu xam ne lii jaaduwul ci réewam senegal mun ne sëñ Tuubaa ngi fi alaaji Maalik a ngi fi limaamu laay a ngi fi ñëpp a ngi fi Baay Ñas a ngi fi ñooñu góor-góorlu góor lu sacrifice seen dund gépp ba lislaam bi agsi fii amunu lu ñu leen di fayee ñoom di lekk seen teraanga amunu lu ñu leen di fayee lu dul bàyyiwaat diine ji mu nar a delluwaat fa mu delloon yonante bi nee na woon badaa diina xariban wa sayahuudu xariban fa tuuba lil xuraba diine mi ngi tàmbalee ci tumurank dana delluwaat ci tumar waaye fa te way texe yi nag mooy ñi nga xam ne seen diine dañ koo rafetal fa tuuba lil xuraba kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp lii daal aw naqar la wu fees ci xol yi mbooleem pas-pasi jullit yi lan laal mbooleem xol fu nu mën a laal nit mu mën koo yëg mu metti ci moom laal nan fa jullit yi nga xam ne dañoo bëgg seen diine te lii ku ci noppi nag yaa ngi noppi ci loo xam ne sa musiba la moo xamante ni ëllëg sunu borom dana laaj lu tax nga noppi woon ñi ngi ñaan ñi nga xam ne ñooy fooyee diine ji yal na leen musibam sunu borom dal yal na leen nattu sunu borom dal yàlla li ñuy def yàlla buñ ci am ndam yàlla leen su mbugalam sunu borom dal ci àdduna te dal leen àllaaxira bu nu gaaw tuub delluwaat ci sunu borom përki démb am na koo xam ne nee na 64 ans am na ko te ci fo la ko am cim fo la ko am loolu bakkañ bakkañ ba kañ kooku sax mën na nangami jullit ñu leen di favoriser jox leen temps yi li daal mettit la ñu ngi ñaan musiba ñi koy def yàlla na mbugalam sunu borom dal la na mu dale woon aboo jaxilil mu dal leen ko ci seen kaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah seexu naa moo nekkoon ci caméraman bi soxna aw moo réalisé émission bi soxna Xadi Ñang moo ko doon monté ñu jox leen daje ci yeneen i jataay